chers internautes de SeneInfo International seneinfo.net ñu ngi di dalal bu baax a baax ci seen rubrique invité de la rédaction euh, ñu koy amal euh, semaine bu nekk tey jii nag ñu am mbégte dalal ki nga xamante ne moom mooy euh, Tane Ndeye Ndeye Ndiémba Diagne mu nekk présidente de la du point d'écoute de la professe la professe mooy association pour la promotion la femme sénégalaise mu nga xamante ne moom mu ngi nekk fële ca Kaolack donc ñu am mbégte bu baax a baax a baax di ko dalal ki nga xamante ne moom mooy Tane Ndeye Ndiémba Diagne ñu bàyyi ko rek mu présenté wu. présenté wala merci beaucoup euh, Aïssatou maa ngi lay gërëm di sant ci invitation bi vraiment surtout période bi nga xam ni ci lañ nekk euh, man maa ngi tudd madame Mbengue Ndeye Jëmb Diagne man maa ngi liggéey si kuréel bi ñuy wax APROFES APROFES nag mooy association pour la promotion de la femme sénégalaise nga xam ni vraiment lépp loo xam ni dafay yëkkati jigéen di ñoŋal jigéen si lay liggéey euh, moo tax bi ma ay surtout invité tey si plateau bi ma kontaan ci trop te di jël nuyoo bi yëpp di ko jox sa staff merci ay surtout merci beaucoup euh, donc yow nga nekk aussi euh, responsable du point d'écoute de la APROFES lan moo tax a lan moo tax a jóg point d'écoute boobu ak lan ngeen fay def waaw merci ay surtout boobu ma ko dinaa ci sawar ndaxte Eh, eh, point de côte bi ñu ngi ko créé en 93 pourquoi 93 ndaxte communauté bi yëpp ñoo jógoon ndaxte dafa am benn xale bu jigéen bu ñuy wax Dooki Ñas jëkkëram boom ko à 21 ans ou 22 ans eh, a professeur Diop ak population Kaolack bi yëpp n'est plus jamais ça loolu moo tax ñu jóg daal depuis lors ñu jóg euh, marche au niveau des artères de Kaolack euh, procès bi ñëw tamit ñu ñu dem ak waxuma population Kaolack sax wante je pense que ni toutes les organisations de la société civile ñëw nañ Kaolack pour vraiment soutenir pour teewee ci audience boobu ndaxte ci audience boobu la ñu njëkk a dugal sunu ci biir tribunal bu Kaolack pour que rek que justice soit fait mm-hmm. loolu moo tax waaw euh, après jigéen ñi ku ci amati lu la metti rek da ngay ñëw mm-hmm. ak professe pour ñu jàppale la euh, moo tax 93 euh, boobu la ñu créé point d'écoute bi ah point d'écoute bi nag du ak rek moom moo mun a xeex violence yooyu mm-hmm. wante ndaxte c'est un fléau mondial dañoo yaatal tool la ñëpp ñoo ci xaj pour ñëpp di jóg di xàcceendoo di dóorandoo pour vraiment euh, mettital yi ñu koy wax ni violence bu fi jeexul tamit mu wàññeeku fi ba faaw. Hmm. violence bi bu jeexul mu wàññeeku foofu ba faaw mais hmm. euh, madame Mbengue est-ce nga ñu euh, ñëwaat am rek si les formes de violence nga xam ne ñoom koy def jigéen ñi. waaw forme de violence yi ñuy jot. bëri dafa bëri ndaxte benn rek dafa ëpp sax mais euh, les forme de violence euh, mooy les violences physiques mu ne la violence physique mooy la nga xam ni dóor gaañ walla ñu rey ndaxte loolu mooy forme yi dafa ànd ak type yi waaw ndaxte boo ne forme de violence rek ndaxte am na ñoo xam ni mën nañ leen def violence te duñ ko xam waaw Eh, mais bi mooy violence physique type bi mooy ñu dóor la ñoo xam ndax dañ la weq ndax dañu damm sa bëñ ndax dañ la dañu tuur sa bët ak yooyu dañ loo xam ne daal dañuy wax ni weddi gis bokk ci ndaxte ku la gis rek xam ni kii mbugal na la wala eh, vraiment def na loo xam ni ku ko gis dina ko xam mooy coups et blessures yi am wala ñu rey la ndaxte am na ñoo xam ne tamit ñoom dañ lay rey wala rey mën na nekk assassinat mën na nekk meurtre waa ndaxte des fois am na rey yoo xam ne c'est prémédité moo tax ñaar yëpp la mën nañ wax ni meurtre la wala mën nañ wax ni assassinat la hmm. kon nag euh, loolu mooy violence physique beneen forme bi si topp mooy violence euh, sexuelle wala abus buñ ne abus mooy mettital yi nga xam ni dañ dafay dañ koy sàkku ci yow ci sa awra muy muy lan ñu ne sexuel ci la bokk viol ci la bokk ñu ñu tëddee la ci la bokk wala semaine bi am naa si ñaar kii yoo xam ni ay inceste la ñoo xam ni kenn ki mag ak rakk la kenn ki papa ak doom la kon loolu ndaxte si bi viol am na inceste am na ndaxte dañu ne ñoo xam ne dañu seen deret dafa jege waru ñëw sëy même boo nekkee ay milliardaire sax waru ñëw sëy ndaxte l'islam daf ko aaye diine yëpp dañ ko aaye waaw loolu mooy inceste mariage d'enfant tamit ci la bokk ndaxte dañ ne fii au 18 ans mooy majeur te gis nañ ni texte yëpp 18 ans moo si nekk les textes internationaux gis nañ ni charte yeeg yooyu yëpp ah euh, kii 18 ans lañu wax même suñu constitution 18 ans la wax pour xale bu jigéen bi di ci euh, marié mais nag dañuy gis. ba ay treize ans sax ñu ñu ci maye ay xale yeeg yooyu nga xam ne dañuy nekk ay CM2 yooyu ñu bëgg leen génneloo école te di leen may te xale boobu dafay toll ci jàng école hmm? dafay toll ci fo wante tolluwul di dem di yor kër di sëy comme ay parents ni ñuy sëyee loolu mooy mariage d'enfant kon nag euh, loolu am na si maanaam violence sexuelle waaw mariage forcé ngi si viol ngi si mm-hmm. inceste mi ngi si harcèlement mi ngi ci am na beneen violence tamit ñu koy wax violence économique violence économique tamit mooy nga jël sa jabar nga xañ ko maanaam pension alimentaire mm-hmm. doo ko jox mu lekk doo ko jox mu naan doo ko jox moyen yi yi fa nekk nga koy jël di sàkkal pexe ak yooyu privé ko yëpp ci ci biir kër gi te mm, diine dafa wax ni e, jigéen sa jabar danga koy dëkkal danga koy dëkkoo kon loolu c'est important ah, bu feebaree nga faj warut a boo ko jëlee si kër ay waajuram warut a xiif waaw kon nag e, waru te rafle loolu yëpp ku góor ki la war te gis nañ ni euh, euh, présentement léegi pratiquement loolu amatul ndaxte jigéen ki day def góor gi di def te pourtant diine dafa ne xorom sax bu ko sa jabar jëndee sa gannaaw boo ñëwee danga ko war a fay kon nag loolu gis nañ ko te loolu mooy violence économique léegi nit ñi dañuy abandonné seeni jabar di dem wala ñu duñ ko jox dépense ñuy ñëw sax wante duñ ko jox dépense te bu ñëwee bu toggee duñ ko laaj foo jëlee xaalis bi dañuy lekk te loolu du fi bëri waxuma ni ñëpp la mais bëri na fi eh, at na boo xam ni tamit eh, dañ koy wax violence eh, psychologique boobu tamit violence bu metti la ndaxte boobu dangay wax ni dinaa la dóor te sama loxo du la laal nga xam ni nit ki bu la xoolee rek geste bu mu def duñ ko xam mu nekk ci sax xol di jiixi jaaxa ak yooyu yow bu fekkee ni sax danga nekkoon nitu yaram dangay dem ba jeex nit ñi di wax ni waa kii lu ko dal moom de temps yi dafa feebar moom da day jeex rek day def nii rek kii fekk ni mettital yooyu ñu ñu lay def te doo doo doo ñeme woo ko wax loolu moom moo lay gaañ ñu koy wax violence euh, psychologique wala ñu saaga la ay injure grave ndaxte am na ñoo xam ne dañuy wax man de ñu saa ñu dóor ma sax moo ma gënal ñu saaga ma kon nag walla ñu wax la wax yoo xam ne ay dañ koy diffamé comme wax la ni yow de ay dëmm nga ngeen baal ma si kii beeg yooyu toog kooku mënu la naaw loo mënu mënu mësu la gis nga def benn pratique boo kii ndaxte dañuy wax ne ndax loolu am na walla amul ba man man gëwma loolu wante yooyu vraiment ci violence psychologique la bokk kon nag euh, ñun ñeent violence yooyu ñu wax bëri na te ute wante ñun ñeent yooyu ñuy gën a ñëw ci suñu centre d'écoute ak ah, ñuy jànkoonteeg ak euh, victime bi ah di waxtaan ak moom ndaxte tamit ku romb buntu kër yëpp ñëw ci sa buntu kër il faut nga dalal nit ki ndax si suñu service la bokk mm-hmm. ndaxte xam naa ne euh, moom euh, moom nga ma naroon laaj mm-hmm. mais da ngay dalal nit ki boo dalalee nit ki mm-hmm. nga déglu ko mooy nga accueillir ko nga écouter nga écouter ko mais nag ñu wax ni ngay dégg loolu ndaxte bu nit ki di euh, wax victime bi dañ ne bul ko dog danga koy bàyyi mu génne li nekk ci xolom bu fekkee ni day jooy tamit bul ko dagg bàyyi ko mu jooy ndaxte thérapie la yow mi koy déglu en tant que écoutante danga ngay dégg après nga luum nga ngay téye nga téye sa gémmiñ di ko poser ay questions ouvertes ak mais questions fermées yi lañuy ñuy bañ de ko poser ay questions alerte muy muy wax xam nga gën a génne li nga xam ne moo nekk ci moom loolu dafa dafa am importance bu paree nga résumé li nga xam ni moom loolu la la wax ba mu ne la waa lii la de wala déedéet waxuma loolu ndaxte tamit naa tax écoute jafe ndaxte nit ki waroo interpreté li mu wax li mu wax danga ko war a déglu nga dégguloo waat ko ko ba mu ne la waaw loolu de loolu la maa ko wax après nag nga laaj ko lan lay xaar si ñun ndaxte ñun on prend jamais de décision à la place des victimes laaj ko lan lay xaar si vraiment ci ab centre bi nga xam ne ñëw na fi moom moo lay mooy jël propre décision ëllëg moo tax surtout en matière conjugale il faut faire très attention ndaxte des fois mën nga dem ne damay dem ci yoon nga dem ba ci yoon sax après daal di wàññeeku waat daal di retirer sa plainte te ñun amuñu droit critiquer la wala wax la loo xam ne du loolu ndaxte loolu aussi c'est très important moo tax ku ñëw ne loo def rek baax na loolu du ñun xamuñu lan la ñuy def ñun par rapport ak li ngay def si lañ lay accompagner ndaxte dinañ la accompagner boo fekkee ni tu es vulnérable dinañ la appuyer ndaxte aussi am nañ appui ndaxte loolu yëpp si prise en charge bi la bokk waaw ndaxte comme que ñun suñu cible c'est les femmes les enfants loolu ci cible bu vulnérable la bokk mhm. moo tax ci am nañ une prise en charge mhm. euh, vraiment médicale am nañ une prise en charge euh, comment comment dirais euh, sanitaire am nañ une prise en charge boo xam ne ndaxte boo ma waxee loolu mooy nit ñi buñ ñëwee loolu la mhm. boo gisee nit ki mu sonn di nàcc wala dara ak yooyu da ko war a yóbbu hôpital mm-hmm. boo ko yóbbu hôpital xam nga fi au au niveau du Sénégal dañuy wax ni ñi lii euh, hôpital yii c'est public mm-hmm. mais boo boo boo kiirul boo jëndul ticket boo fay boo demul fay kenn du la faj mm-hmm. analyse yooyu yëpp ñun waa APROFES ñun ñoo koy fay buñ la bindalee ordonnance tamit dañu contractualiser ak les pharmacies de la place da ñun dañ bu ñu bu ñu joxee euh, ay garab ba fin du mois dañuy fay bu fekkee ni tamit euh, yow da ne lekkuloo ñun ñoo lay jox loo lekk bu fekkee ni dañ la dañ la répudier génne la kër gi amuloo foo nekk ñun dañ lay dalal ndaxte am nañ foo xam ni dañ fay dalal les femmes yi nga xam ni dañ dañ leen répudier mm-hmm. waaw dinañ leen fa dalal quelque temps bu fekkee ni aussi dañu dañu kii dañu bëgg ñu réintégrer leen yóbbu leen seen famille aussi dinañ def ay médiation ba ñu dem ba ñu dem seen famille loolu dinañ ko def dinañ leen di jox tamit ay AGR ndaxte victime yu bari dañ leen former en GIE pour nga xam ni dañuy def ay apprentissage di jënd di jaayantu ak ay affaire yooyu pour di si am dara fond boobu ñu ko tuddee fond Revel bi ñoom ñoo ko moom wante kenn du si teg benn intérêt loolu aussi dañ koy wax et mieux y a des caisses endogènes tamit mooy caisse yooyu ñuy wax ñetti caabi yooyu tamit dañ leen koy defal yooyu nga xam ne ñoom ñoo koy reel seen bopp euh, di leblante si seen bopp ak seen yépp pour ñu am lu leen occuper ba pare te vraiment on parle de l'autonomisation de la femme te c'est tout un processus c'est pas demain la veille waaw il faut ngay accompagner nit ki di ko topp ma nga xam ni ëllëg ak si biir dina mun a autonome ba pare dinañ leen di defal tamit ay formation ñu koy wax ay groupe de e e e parole sur les violences pour ñu xam ko ndaxte léegi ñu si bëri ay relais lañ seen koñ yi bu ñu gisee ku ñu mbugal seen koñ yi ñoom ñoo lay vraiment accompagner pour nga ñëw à eh, euh, professe kooku aussi euh, vraiment si prise en charge bi la bokk te vraiment dañu am léegi solidarité si seen bopp ndaxte pourquoi ces groupes de parole pour ku nekk xam ni ah fii kat comme dispensaire la mel wala hôpital boo demee di gis koo xam ni danga ko tane ndaxte en général bu ñuy wax rek dangay gis sax kenn di jooyal keneen di wax ni kii de man moo ma tane maa ko tane ak yooyu nag c'est important c'est important te dañu dem ba am ay ndey dikke ci seen biir groupe yi ak ay affaire yooyu te vraiment ah sant yàlla la daal sant yàlla la te bul wax ni man mettital ñeneen ñi rek lay dal man jamais duma dal ñépp la mun a dal waaw ñun ñii di wax sax mun nañu dal waaw surtout la violence psychologique ndaxte partout foo dem rek mu nga fa mhm. waaw waaw mu nekk tout un processus par par rapport à la prise en charge des victimes euh, euh, de violence donc euh, ki nga xamante ne moom madame Mbengue yaatal bu baax a baax

Euh, maa ngi ko doon wax sa confrère yi ba ñuy kii euh, interviewé l'autre jour pour le moment ñu ngi si deux cent plus de deux cent euh, kii victimes de violence te année bi jeexagul et sur les deux cent la on a trent huit violences sexuelles mm-hmm. waaw mooy am nañ lu ëpp ñaar téeméer ay yoo xam ne ñëw nañ gis ñu. wala ñëw nañ pour ñu jàppale leen am na ci ci deux cent yooyu fanweer ak juróom-ñett yoo xam ni ay violence sexuelle la maanaam ñoo xam ni dañ leen a siif te siif yooyu am na ci ñaar yoo xam ni kenn ki dafa tëdd ak papaam kenn ki mag ak rakk la ñu bokk ndey ak baay kenn ki taawu papaam la papaam moom la tëddal mm-hmm. waaw. est-ce que mën nañ ñëwaat rek un peu état bi lan la fan ngeen toll si loi boobu nga xamante ne moom moo criminalisé que tey kay ji yéen a ngi bu baax a baax par rapport ak loi boobu. waaw rapport ak loi boobu ñu ngi ciy avancé bu baax ndaxte vraiment xam nga ni comme que criminalisation euh, viol la ñuy wax bu yàgg ba xam nga c'était un délit bu fekkee ne da nga da nga siif bu dee kaw la bu mercredi lañ doon atte les flagrants délits mais léegi comme que dañ ko criminaliser il faut yow si chambre criminelle yi ngay dem te mun nañ la denc si euh, kii teg la si prison bi lu yàgg soog la atte loolu la ndaxte vraiment dégg nga ñuy wax ni magistrat yu doyul euh, chambre criminelle yi mooy yiñ daan ooyee assise léegi nag dañu ne buñ ko defee chambre de eh, chambre criminelle xëy na si léegi gën a gaaw muy magistrat yi bëreeguñu ndaxte man eh, ñi ñi def crime nii ñu tëye leen ba léegi am na koo xam ni ba 2003 bi mooy trois ans ku def inces mooy ki ki ma ki keneen ki ma lay wax nii bokkute ki ma la wax léegi mm-hmm. kooku moom moom tamit doomam bu jigéen la ëmbal taawam bu jigéen bu doon def CM2 moom la ëmbal moom ñu téye ko mais ba léegi mu ngi ñu ñu ñu kii ci kaso bi mais atteeguñ ko waaw mm-hmm. kooku nag atteeguñ ko te dañ ne criminalisation du viol mm-hmm. te depuis deux mille vingt la léegi il faut ñu xaar mm-hmm. waaw pour ñu mhm. am solo lu doy waar mhm. aussi ñun suñu rôle mooy la prévention ñun société civile bi te depuis lors ñu ngi def ay sensibilisation pour xamal population bi loolu ko amee lan moo la ciy fekk mhm. waaw pour sax un peu mu dissuader leen wante ba léegi bi ngi am ba léegi yoon yi mi ngi am ak ay affaire yooyu mu nekk uh, lu doy waar comme comme ni mu ko waxee daal mm-hmm. waaw mais fu si nekk rek il faut nga jouer si sa rôle ba nga xam ni mm-hmm. affaire boobu dina fi wàññeeku war a mu jóge fi mm-hmm. ndaxte nous nous voulons l'alerte le waaw ñu bañ di nëpp nëppal ndaxte ñu ngi wax ni loolu chiffre yooyu c'est alarmant mais yi ñuy nëpp nëppal si biir kër yi moo moo moo ëppati moo ëpp ci loolu ñu ñuy nëpp nëppal donc su euh, mu nekk nii euh, violence nekk lu début de viol yi aussi ñu ngi am ci kër yi fii fii ñu ngi am ci kër yi mu nekk lu doy waar loo xamante ne Afrofest mu ngi siy def ay jéego di ci xeex pour vraiment gën a wàññi euh, violence faite aux femmes lu ñëw rek ci euh, ñu des rek si cadre boobu ñu nekk dans le cadre des séjours d' activisme xamante ne euh, ñu ngi lutter contre les violences faites aux femmes tey mun nga ñëwaat un si les séjours d' activisme ak lan mooy thème thème mu année bii nii. waaw mm-hmm. thème mu année bii ndaxte fii ba deux mille trente la lañu mën a wax ne que thème sur les violences. ndaxte eh, année bi aussi dañ ne tous unis pour euh, lutter contre pour euh, pour l'élimination des violences basées sur le genre mm-hmm. ndaxte loolu buñ ko waxee rek mooy na ñëpp ànd di yëkkateendoo di xàcceendoo di dóorandoo pour vraiment jële fi maanaam mettital yi nga xam ni mu ngi dem ci askan bi ndaxte buñ ne violence basée sur le genre dañuy ñëpp la mm-hmm. amul góor amul jigéen ndaxte bu ñuy wax viol rek nit ñi dañuy foog ni ci jigéen ñi mais taalibe yu bari dañ leen di violer waaw ndaxte promiscuité bi ñuy nekk mm-hmm. ah ak ñi nekk ci mbedd meek yooyu di taxawaal ak yooyu mm-hmm. waaw ñu bari dañ leen ci violer te ay góor lañ ci abi kon nag moo tax dañuy wax violence basée sur le genre pour wane ni ñëpp la mm-hmm. mun na nekk góor comme mun na nekk jigéen waaw man toujours loolu dama koy leeral pour nit ñi bañ a wax ni góor ñi nag ak yooyu waaw buñ ne basé sur le genre rek ñëpp la pour askan bi yëpp la képp koo xam ne am nga ci façon mu metti boobu danga ko war a ñëw signaler waaw moo tax ma ne la toujours ñun li ñu gën a soxla mooy l'alerte mooy le signalement nag te loolu c'est important moo gën ñu koy nëpp nëppal ci biir kër yi ndaxte xale yu bari yoo xam ne tamit dañ leen di kii dañuy nëpp nëppal seen kii viol yi si biir kër yi ñoom ñooy en général mooy viol yi nga xam ni c'est suivi de grossesse mais boo fekkee ni le même jour lañ la violé nga dem hôpital vraiment ñëw defal la analyse defal la li ci war yëpp je pense que ni doo biir ndaxte am na pilule bi ñuy wax la pilule du lendemain boo demee dinañ la ko jox te buñ la ko joxe en moins de quarante huit heures li nga je pense que ni euh, grossesse boobu ñuy wax yàlla dina la si mën a jël mm-hmm. wante boo toogee ñuy wax ne buñ ko wax dañuy weer suñu bopp wala lii ak lii loolu mooy indi doom ji taba doom bi jiwee mooy gën a indi weeraange ndaxte yow sa papa biiral la wala sa mag biiral la wala sa rakk biiral la loolu moo gën a metti mm-hmm. loolu moom dafa dafa ëpp dafa doy waar waaw kon nag nit ñi mhm. war nañ ci bàyyi xel mhm. même bu fekkee ne bëgg ñoo dem ci yoon tamit nañ yóbbu xale bi pour sauver ko mhm. waaw ndaxte xale bu tuuti demagul fenn ay treize ans euh, ëmb franchement parlant dafa metti dafa metti même yow mi koy recevoir wala di ko wax entourage am lay lay gën a metti ne moom mi nga xam ni sax moom lañ ko teg ci prise en mhm. charge boobu est-ce que yéen nga discuter ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy religieux yi pour vraiment ñu mun a sensibiliser. Euh, bien sûr bien sûr kii euh, violence yi met rek tamit stratégie yi ñuy def tamit la ndaxte on fait de la sensibilisation ndaxte bu ñu waxee sensibilisation dañuy ndaxte xam nga olof dafa ne. nu mu lu fagaru moo gën faju ñun loolu la ñuy def ndaxte ku si nekk rek danga am foo commencé ak foo yem ñun sensibilisation boobu dinañ dem ci maanaam rajo yi yow xam nga si dara mm-hmm. defi eh, ay émission rajo te ñun émission yi ñuy def sax c'est interactive ndaxte dañuy bëgg ñëpp ñëw te dinañ invité vraiment les autorités dinañ leen invité les notables dinañ leen invité ñëpp la ñuy invité dañuy invité imam yi xam naa ne xam nga taqi mm-hmm. dañ koy invité te ñoom dañ ciy def ay argumentaire la hmm, di invité euh, abbé dañ koy invité ndaxte ci société bi lañ nekk te vraiment ñëpp fi nekk du jullit buñ ne jullit maanaam chrétien yaa ngi fi euh, kii yaa ngi fi ah borom euh, diine l'islam yaa ngi fi kon nag ñëpp la ñuy oo di oo les techniciens de santé ñu ñëw ñoom tamit ci plateau yi wax hmm? mm-hmm. kooku tamit c'est c'est important ah mm-hmm. oo bàjjenu gox yi di leen invité ñoom tamit ñu ñëw par rapport à la sensibilisation euh, pour dem di def ay visite VAD ak aussi bu ñu gisee dara seen gox ñu wax ko mm-hmm. accompagner ay kii yooyu maanaam ñooñu nga xam ni eh, ay victime la looloo leen dal mm-hmm. ah ñëpp la ñuy oo mm-hmm. ñëpp ndaxte eh, kii te aussi dañuy dem ci gox yi dañuy dem ci village yi maanaam gox goxaat yi ah eh, dëkk taax yi ci dëkk kaw gi di def ay causerie causerie yooyu maanaam toog waxtaan ak ay groupe de vingt cinq personnes ak yooyu ah bu ñu ko buggee yaatal ñu def ay session de dialogue session de jaloo yi nga xam ne dañuy au notable yi yi ñu ñëw jël engagement ndaxte boobu bokkut ak forme de causerie bi mais session de dialogue mooy nga ñëw pour autorité yi nekk foofu ak notable yi hmm, ak leader d'opinion yi ñu ñëw ak ah, jël seen responsabilité daal di jël engagement pour wax ñu naka lañu ñu mun a def ba nga xam ni maanaam violence yooyu ñoom dinañ ci taxaw euh, te dina wàññeeku ci seen gox kooku tamit moom bu ñu jógee ci causerie yi jógee ci émission rajo yi dinañ def tamit euh, na mu turóor ay théâtre théâtre forum dinañ ko def ndaxte troupe bi mooy ñëw di renforcer li nga xam ni moom lañu def ci ay causerie ak yooyu troupe théâtrale bi nga xam ni ñun ñoo ko créé te loolu aussi c'est dafa am importance ndaxte am na ñoo xam ni boo leen waxtaan waxee nii di waxtaan dinañ ci kontaan mais am na ñoo xam ni ñu gis maanaam film walla ñoo gis théâtre moo leen di gën a vraiment conscientiser kon nag ñun dañu bëgg ñëpp approprié wu dinañuy def tamit ay formation ndaxte loolu aussi c'est important di def ay formation pour nit ñi tamit mun a xam mun a ràññale loolu dafa am importance te nit ki balaa nga ka wax dara danga ko ko war a xamal ba pare ba mu xam loolu mooy lan moo tax formation yi aussi mhm. c'est important te dañuy def ay formation yu bari aussi mhm. ay di former nit ñi tamit ci seen leadership nit ki tamit war a gëm boppam am ay estime de soi loolu aussi dafa am importance ndaxte nit ki boo gëmul sa bopp doo mun a xam sa bopp te boo xamul sa bopp tamit doo mën a vraiment nekk leader ndaxte ñun dañuy liggéey même pas sur le leadership féminin mais sur le leadership transformationnel parce que dañoo bëgg a jikko yi mm-hmm. changer jikko euh, ñu des rek euh, si ces euh, jours d' activisme yooyu yoo nga ne ñu ngi koy ñu ngi koy wéyal ba tey donc yan activité ngeen def dans le cadre d' activisme. waaw merci merci Aïssatou ndaxte ñun ces jours d' activisme yi dafa am importance ci si ñun ndaxte boo xool ces ces jours d' activisme yi c' est inclusif mm-hmm. pourquoi c' est inclusif ndaxte le vingt cinq novembre lay commencé. mu nekk ñaari ay bés ñaari ay bés mooy pratiquement ñaari semaine ndaxte le 10 la war a jeex ñu ne le cinq bi moom mooy euh, journée internationale des violences hmm? faites aux femmes et aux ñu ne euh, ba ñu jógee ci le 25 bi ñu ne le euh, premier décembre mu si la journée sida. Hmm? ñu jóge ci journée sida ñu ne le trois décembre c'est la journée des handicapés hmm? le 10 euh, kii euh, comment dire le 10 décembre la journée internationale euh, des droits de l'homme xam nga kon vraiment euh, ñaari euh, ñaari ayubés yooyu dafa am importance ci vraiment ci doomu aadama yi moo tax ñun vraiment dañ ko fonk ñun le vingt cinq boobu ba léegi def nañ ci ay émission rajo bi ñuy jógee ci émission rajo yi le vingt neuf def nañ benn euh, caravane ak euh, la population de Kaolack euh, ak benn consortium bu nga xam ni dafa boole des huit organisations dans le Sénégal mais au niveau de Kaolack ñun ñoo fa nekk à professe ak AADS ñun ñoo organiser woon loolu te vraiment nit ñi déglu nañu mm. euh, rajo yi relayé nañ ko euh, journaux yi bind nañ ko euh, ndaxte loolu dafa am importance ñu bi ñu bu jógee ci loolu man suba rek waa TVS wéte nañ ma ndaxte incha lu ma guddi guddi damay damay ñibbi ndaxte vraiment euh, ñoom aussi boobu ba léegi ñu ma topp may daw euh, pour kii pour def ak ñoom benn plateau muy télévision kii bi euh, ah waaw seen saalum bi kon nag loolu dafa am importance pourquoi moo am importance xam nga ñun li ma lay wax ni tool bi dafa yaatu ndaxte ñun société civile bi rek mënuñu liggéey pour mettital yi jeex te yéen presse bi bokku leen ci ndaxte fi ñu bëgg a yegg yéen yéen ñu fa mën a yeggale ndaxte peut-être ñun li ñuy def dafay restreindre wante ak seen vraiment euh, média yi ak yooyu dafa dafa dafay yaatu nit ñi fu nekk lañ koy dégg te loolu dafa am solo surtout ak les réseaux sociaux yi nga xam ni am na kii yu bari ñu ngi ci biir réseaux sociaux yi daal ndaxte loolu aussi dafa am importance moo tax foo leen ñu ooyee ñu xam ne xeex bi ñun ak yéen ñoo ko bokk ñun mm-hmm. franchement parlant mm-hmm. lépp lu ñu mën a def pour ñëw dañuy ñëw mm-hmm. waaw di jaajëfal bu baax baax si boobu mais aussi si activité rek ngeen aussi def euh, ngeen aussi euh, def plaidoyer pour la gratuité de certificat médical donc mën nga ñëwaat un peu la gratuité du certificat pourquoi ngeen bëgg la gratuité du certificat médical pour les femmes et euh, filles de violence waaw ndaxte xam nga c'est les couches les plus vulnérables moo tax comme li ma la wax ne rek dañuy wax ni les les les kii là les hôpitaux là c'est sont privés sont publics mais c'est privé ndaxte doo fa def dara te fayeekuñ la te ñun depuis deux mille vingt et ndaxte yow ci ci ci kii yi nga bokkoon actrice yi nga bokkoon ndaxte ñu ngi doon xeex au niveau national pour vraiment ñu euh, defal ñu la gratuité du certificat médical parce que ñun dañu ne ñun mënuñoo ñëw rek daal di def prise en charge juridico-juridique c'est-à-dire lépp loo xam ni dafa nekk au niveau juridique ñun ñoo koy def di la bindal ay kii ay plainte xam nga loolu di la accompagner ay tribunal di la utal avocat ak yooyu mais dossier bi il faut nga topp ko wutal nit ñi ay certificat médical wutal leen euh, ku ci amul ay papier nga wutal leen papier loolu yëpp ñun ak profession koy fay te gis nañ chaque année liñ ci doon fay mën na un million ndaxte les les certificats médicaux varient de dix mille francs à vingt mille francs te loolu dafa dafa doy waar liñ ci dépensé dafa bëri ñu bëggoon nag comme ni ñu def la gratuité de la césarienne te c'est pas totalement gratuite ndaxte acte bi rek la moo gratuite ndaxte li si des yëpp nit ñi dañ dañ koy fay ñu bëggoon certificat médical boobu mu ànd ak soins yi buñ la fajee ba pare ñu daal di la euh, kii délivrer certificat médical mais déedéet boo leen ko laajee dañuy bañ ne la ah jees bi dañ koy fay mais mu terewul nag kenn dem ci yoon mais dañ la wax ne rek ku si nekk danga am foo foo yem ndaxte yow technicien santé bi moom moo la mun a wax ni kii kat blessure bi war na am ITT euh, vingt jours wala vingt et jours wala ITT bi kat euh, deux jours wala trois jour la pour bu demee ci yoon yoon bu liiree këyit bi mun a moom tamit daf koy faciliter day facilité mais mënut a tere kenn dem ci yoon waaw kon nag loolu c'est important mais gis nañ xale yi sax léegi léegi tout tànk yi kuñ ci violé dañ euh, gynécologue bi daf lay wax nga dem si police mm-hmm. waa police ñoom ñoo lay indi buñ la indee ñu defar la certificat médical wala boo fekkee ne da ngay jëkkee tribunal mm-hmm. procureur yónnee police wala gendarmerie pour ñu ànd ak euh, xale bi pour dem ñu ñëw jox la certificat médical mm-hmm. ndaxte am na am na solo mais mënul tere kenn dem mm-hmm. ci ci yoon loolu daal moo taxoon nag ñu bëggu bu fekkee ni état mën nañu ko euh, kii euh, may ma nga xam ni dafay gratuite loolu ñun moom la ñuy demandé ndaxte depuis deux mille vingt et ñu ngi ci ba fi mu nekk nii ñu ngi ci deux mille vingt trois kon nag euh, te franchement parlant li ñu def ren ndaxte ñun ak thème bi dañu jël sous thème euh, def ko plaidoyer pour la gratuité du certificat médical mm-hmm. te thème boobu moo wër fépp ndaxte. dem na Ziguinchor dem na maatam dem na Louga dem na Saint-Louis hmm? dem na Sédhiou dem na Ziguinchor hmm? dem na Kolda kon nag cette euh, région yooyu yëpp euh, gars yi def nañ fa caravane pour la gratuité du certificat médical te def nañ aussi ay euh, vraiment flyers ak yooyu yëpp mhm. jox ko nit ñi ak ay dépliants pour vraiment gën a sensibiliser nit ñi sur la gratuité du certificat médical xam naa ne yombul te c'est pas demain la mais na il faut ñu yëkkati suñu baat ñun jigéen ñi pour wane ni metital yi góor ak jigéen la wante li ci ëpp si jigéen ñi lay dal li ci ëpp laa wax waxuma ni amul ci góor ñi de wante li ci ëpp ci jigéen ñi lay dal moo tax nag ñu bëggoon te jigéen ñi dañu néew doole ñu bëggoon ñu ñu yombalal leen certificat médical boobu rek pour mu mu gratuit. dëgg la yombalal leen certificat médical boobu pour mu gratuit. Ah, mm-hmm. bu jeexal rek nga wax sa kàddu bu mujj. Mm-hmm. ak aussi revenir un peu sur les conséquences yi nga xam ne violence yi ñu ko ñu ko am. waaw ndaxte conséquences yi moom mooy jeexantal yi ndaxte dafa bëri ndaxte. ndaxte kii forme de violence bu nekk mun nañ wax ne am na conséquence ndaxte dama xam ni bu fekkee ni dóor nañ la gaañ nañ la de mun na si topp ak yooyu fase mun na ci topp ah ñu ñu ñu génn la kër ga fase la daa de nga ànd ak sa ay doom dem hmm, xale yi ëllëg ak si biir mun nañ nekk ay bandi xam nga loolu di ëkku seen papa ay affaire yooyu ëllëg ak si biir mun nañ nekk quelqu'un de violent ndaxte kat dañu ne on ne n'est euh, kii violent on le devient xam nga kooku c'est important waaw kenn du juddoo ak violence mais fi nga danga koy euh, euh, violence dalay da dalay dab ndaxte boo gisee dëkk ci benn kër ñuy def loolu Hmm? di saaga di di dóor mag ñi ci seen kanam ak ay affaire yooyu yëpp ëllëg ak si biir mooy indi xale yi nekk bandi bu ñuy bu ñu fasee seet ay ñu dem topp ci kon nag loolu moom dañ ko war a dindi ba set ndaxte ñun xam nga liñ bëgg hmm. de l'harmonie couple dafay dafa bonheur dala war a am dafa war a am amour ah? ñu vivre dans l'harmonie ak seen njaboot ak yëpp xam nga y a rien de tel nga nga jur sa ay doom ñu yaroo si seen diggante papa ak yaay ñun lool loolu la ñuy ut loolu la ñuy sàkku wante ñun moo tax du ñu jëlal kenn décision ndaxte fase muy lu mujj te te même ci yoon boo fa demee dañ day delloo ay va et ay va et ba ba nit ki découragé bu ñu xamee ni ñii mënuñoo juboo te xam ne aussi mun na jur leneen si la euh, maanaam juge bi di soog a prononcé divorce mais nag dafa metti ndaxte koo xam ne yaa ko jël xale yow la xam ngeen am ay njaboot vivre ay vingt vivre ay trente nga xëy suba rek bàyyi ko loolu dafa metti wala nga xëy suba abandonné ko ndax keneen loolu dafa metti hmm. yow lem tàllaloo sa tànk lemoo sa tànk hmm? nit ki boo ko bëggatul na ko bàyyi ci sutura ci njëkk ak teraanga moo gën yenn yi di ci am ñuy dem ci yoon dem ci yoon lu baax la ndaxte dañu am vraiment ay institution ndaxte dañ ne ñun dañu am trois pouvoirs des fois sax dañuy wax quatre ndax presse bi waaw ndaxte dañu ne suñu exécutif ndaxte ñun ñoo ko fal mm-hmm. muy la président de la république ñun ñoo fal maanaam assemblée générale kii euh, euh, bi nationale bi ñun ñoo ko fal mm-hmm. ñuy ñuy ñuy voté maanaam loi yooyu yëpp mm-hmm. buñ paree ñu delloo ko exécutif bi ñu génn ko ci journal officiel bi après daal di ko jox maanaam justice bi mm-hmm. mooy judiciaire bi muy tribunal ak police ak gendarmerie xam nga moo tax dafa dafa am importance ñu ne bu kenn fayul sa bopp loola waaye def rek na nga dem ci yoon boo demee ci yoon dina la wax fa ngay commencer ak fa ngay yem mais nag des fois nit moo matul ndaxte moom toujours dafay jéem a fayul boppam mooy indi yu metti yu grave yi yëpp ci ci biir kër yeeg yooyu ay rey nañ ko ay def nañ ko nii damm nañ ko def nañ ko nii lépp mu ngi ci biir sëy yi waaw moo tax violence yi lépp loo wax rek mu ngi ci biir kon nag imparte yi dafa bëri te uute mhm. surtout au niveau des enfants waaw ndaxte xale kat mooy nekki magu ëllëg kon nag xale dañ leen a war a yar mhm. ci la non violence mhm. loolu c'est important couple dañoo war a leen a yar ci la communication non violente loolu dafa am importance ndaxte franchement parlant euh, moo tax bu fekkee ni gis nañ nit nit koo xam ni vraiment comme li nga wax conséquences yi da ngay gis ñoo xam ni boo leen déglu rek nga xam ni ñii àndootu àndatuñu seen xel mhm. ñu ngi commencé di traumatiser wu te bu boobaa ñoom comme que déglu lañ mun a am si ñoom dañ leen di référer au niveau de CAOSP mooy si les psychologues conseillers ndaxte tamit c'est important psychologue conseiller yooyu bu fekkee ni ñoom euh, kii bi dépassé na leen cas bi dépassé na leen dañuy dañ ñu koy wax ñu envoyé ko ci euh, psychiatre bi ndaxte nous façon une prise en charge holistique mooy lépp dafa war a nekk autour de la victime dañ ko war a déglu dañ ko war a faj dañ ko war a jëndal ordinance dañ ko war a utal fu mu dëkk hmm? dañ ko war a utal psychiatre boo xam ne da koy da koy suivre mm-hmm. dañ ko war a utal psychologue loolu dafa dafa am solo mais xëy na certes Sénégal nit ñi bokkuñu noonu ay kii ak yooyu psychologue ak yooyu mm-hmm. ndaxte man des fois dama leen di wax ñu ne dañ ko liggéey surtout boo amee ay wujj ak yooyu te franchement fekk ni stress bi moo leen jàpp ba mm-hmm. loolu di am ñu commencé di am ay trauma te loolu nga dem si psychologue bi moo gën ngay dem si sëriñ mhm. xëy na boo demee si psychologue bi ba mu tële wala dem si psychiatre bi ba mu tële bu la neexee nga dem si sëriñ wante nag boo ñun bëgguñu te psychologue mënoo fa dem tey rek mu faj la mhm. ndaxte c'est des séances des rendez-vous c'est des rendez-vous mhm. loolu dafa am importance kon nag euh, je pense que ni ñun euh, victime nga demandé xaalis bu bëri bu fekkee ni bëgg nga ko dimbale ndaxte ñun moo tax ñun bi ci commencé ubbi suñu centre bi dañ ne leketu kese naxul bëy ndaxte nit bu ñëwee ci yow amul dara des ko pass sax duñ ko am transport sax duñ ko am ba pare nga mu ñëw nga neenal ko wala di ko wax ndeysaan ndeysaan xam nga loolu toxul victime bi ñëw mhm. loolu moo tax ñun booy seet fii si Sénégal ñun ñëw fi njëkk def une prise en charge te nag loolu euh, vraiment ndaxte dafa am fu ñu teg jigéen mm-hmm. ndaxte vraiment nous sommes une organisation leader organisation militante et aussi une organisation féministe mm-hmm. kon nag loolu dafa am solo si ñun loolu moo tax vraiment ñun dafa am fu ñu teg jigéen ndaxte dañ ne société bi mm-hmm. bu doon ñaari tànk benn bu góor ak benn bu jigéen la kon nag ñooñu dañu war a a déggoo te ñu foog nañ ni le fondement d'un couple c'est communication nit dañoo war di waxtaan kon dañu war di xam dañu war di ràññee di ràññale loolu c'est important mm-hmm. waaw ndaxte bu ñu gisee nii kii doomu aadama la góor la kii doomu aadama la jigéen la mm-hmm. kon nag waruñoo gisee comme góor ak jigéen ndaxte pesanteur sociaux yi moom tamit moo ñu sonal pesanteur socio culturel yi moo sonal nit ñi ci vraiment jigéen dafa war a oyof dafa war a féetee suuf dafa war a ki jaamu jëkkëram dafa war a dafa war a et ndaxte boo demee ci l'islam au contraire boo demee ci naar yi sax gis nga ñoom seen jabar yi dañ leen di toggal dañ leen di bës seen yaram yi lu nekk dañ leen koy defal mm-hmm. ay affaire yooyu pour seen jabar yi di leen sentir xam ne ñii dañ leen a bëgg ak ay affaire yooyu mm-hmm. hmm? mais boo ñëwee si yeneen suñu dëkk yi ak yooyu dañuy foog ni jigéen jaam la ñoom mm-hmm. lu leen neex rek def duñ la teg doomu aadama ndax la patriarcat waaw góor gi mooy chef jigéen ji moom mooy sexe faible bi kon nag lépp luñ ko tegoo rek daf ko war a teg bañ nañ ko ba bu ñuy bu ñu takkee bu ñuy sëyi sax dañ lay teg si digg kër du ñëw teg góor gi di la wax dangay oyof ni mm, kii mbaxana dangay téye sa tànk dangay téye sa làmmiñ dangay téye dangay téye loolu baaxul même loolu boo ko yaree sa doom sax baaxul man am naa benn xale bu ñu violé mu ñëw seen waa kër nee waxuñ ko dafa la bañ dañ dafa bañ a wax ki ko violé ak ay affaire yooyu bi ñu ko indee si man ma génne leen ñoom ñëpp muy fo sama clavier ak yooyu yëpp toujours damay joxe anecdote boobu di fo ba mu neex ko di ma laaj lii lan la lii lan la lii lan la ma koy waxal dama yàgg ma ne ko waa bébé waa yow yow yow min kii man na ma lan la lan la la def mu xool xoolaat ma mu ne ma dafa simi sama tubéy dafa kii ma ne ko kan la mu ne ma borom bitig bi mën a ko kañ la woon mu ne dañ sama yaay ma yónni woon bi timis passé léegi ma ne ko waa li tax waxoo ko sa yaay ak sa papa mu ne dañ may dóor dañ ne xale du nettali tu as ñoom ñoo koy nee na dañ koy dóor te ñoom bi ñëwee di ma raconté kii bi problème bi nee na ñu ñun sax si sama doom ñemewuma bu ma ko xoolee rek mu xam li may wax mais loolu du yar mm-hmm. loolu dangay traumatiser xale bi bi ñu paree ma oo leen ak yooyu ma ma expliquer leen ma wax leen mun ñu ne ma ndax wax na ma ne wax na kañ ma ne ko aisément ak yooyu ndaxte bu ne daf ma dafa simi sama tubéy di ma def kii yëfu saay-saay kooku moo des mots d'enfant waaw mais yéen yéen ngi ñëw di wax affaire daf ko drogué daf ko def lii ak yooyu xale xamut loolu mm-hmm. ma ne ko li mu wax moom laa gën a gën mu yéen li ngeen ma wax day dafa simi sama sama tuba yi daf ma def yëfu saay-saay loolu c'est des mots d'enfant wante ay daf ko drogué daf ko def nii te yéen fekkewu leen gisu leen mm-hmm. te yéen xale bi nanguwu leen a wax loolu xam nga inventé la mais lu moo tax dañu war a xam ni ñuy yaree suñu doom gi ndaxte ñëpp dañu foog ne mun nañ yar non mënuñu mënuñu yar boo mënul yar nan ngay yaree sa doom ndaxte koo xam ne bu waxee nga hypnotiser ko bu waxee nga saaga bu waxee nga kii ne ko téyal sa làmmiñ dangay fen kooku bu amee problème ci mbedd mi naka la koy waxee ah, kon nag dañuy mun nañ yar suñu doom mais aussi ñu yar leen pour ñuy wax dëgg mm-hmm. kon nag euh, loolu moom dafa dafa am solo ku ci am lu la dal nga ñëw wax ko mm-hmm. loolu dafa am solo kon nag euh, franchement man maa ngi rafetlu mm-hmm. émission bi di leen gërëmaat di leen sant di leen wax ni rek fi ngeen bëgg a yegg ci euh, vraiment rajo bi yàlla na leen fa yàlla yeggale Sene Info International maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ni rek euh, vraiment ah jëw ngeen yokku ci limu kii bi média bi kon nag loolu c'est important kon nag euh, fi ngeen bëgg a yegg tamit yàlla ngeen fa yàlla na leen fa yàgg nañ si média yi parce que depuis 2017 ñu ngi mm-hmm. existé mm-hmm. voilà ñu doon euh, ñu kontaan bu baax a baax am mbégte ah, dalal ki nga xam te ne mooy madame Mbengue Ndeye Diagne mu nekk euh, fële euh, responsable du point d'écoute de la professe association pour la promotion de la femme sénégalaise bu nekk fële si Kaolack euh, mu am ñu amoon bu baax di ko dalal ah, ñu defoon temps yi benn plaidoyer pour la gratuité du certificat médical dans le cadre des séjours d' activisme nii nii nii à partir du du 25 novembre la commencé boo jusqu'au 10 décembre. ñu amoon mbégte bu baax a baax di ko dalal ki nga xam ne moom mooy madame Mbengue Ndeye Dièmba Ndiaye si plateau Sene Info International ñoo ngi jaajëfal bu baax a baax si teewlu bi euh, guddi bu jàmm ak une bonne suite euh, des programmes sur Sene Info International